jërë ngeen jëf euh, mbokki internet ba Sénégal ginnaaw ba ñu leen nuyoo ci ànd bu rafet bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk bés bu nekk leen di ñaan ngeen di wéy di abonné ak di activer cloche de notification ngir information yu dugg ngeen mën cee am ay leeram tey li gën a fës ci information yi dañu koy dooree ak lu doy waar xewee foofee ca diwaanu Kër Golo sept électricien ñoo fa daal di ñàkk seeni bakkan ginnaaw bi leen courant bi daal di jàppee euh, mudib tiis bu métti bu fi daal di xew ñu leen di ñaanal suufoo seeni kaw ñaanal tamit seeni njaboot may leen xolu muñ bu ñu jugee si xibaar boobee am ca kër golo euh, dañuy ñëw si euh, euh, ki nga xamante ni mooy bintu seen Petit Gallé nekkoon si maison de production bu Tata Ngoné Ndour ni ngi démb la daal di def interview bu daal di triste loolu di wax si ay jafe-jafe yi mu daan dund jamono boobee bi si njëkk nag mi ngi wax ci li nga xamante ni daloon na ko seen Petit Gallé ba muy def final ba muy waajal demi-finale calme ci la ñàkkee ki nga xamante ne moo di waajuram bu jigéen mu nekk mu moment yu diffisil yoo xamante ni dund na ko te kenn mësu koo xam euh, si moom wala mu gis ko ci ay bëtam waaye mi ngi daal di sant suñu borom moom mooy xool ki nga xamante ne moo koy teg naqar xool ko neex tamit mu teg ko mu jox ko bànneex ci noonu mi ngi sant yàlla bu baax te ñun ñu ngi woy di ko ñaanal gudd fan ak wér ba mën na yeggali li nga xamante ne mooy carrière am ak jàmm bu ñu jógee si ki nga xamante ni mooy du moo di bintu Sène Petit Gallé dañuy wax si mariage bi nga xamante ni instant bi moom la ñëpp di waxtaanee di ko xaar samedi incha allah dox si diggante kii di Dieyna Baldé ak kii di Bry Faye ñoom ñaar nag seen diggante nag yàgg na lool waaye seen diggante juróon na fi coow uh, ba ki nga xamante ni uh, mooy Dieyna Baldé duggoon na fi kaso waaye mu mel ni loolee suñu borom buy defar day mel ni koy yàq ba tey ci ñu war a mariage samedi incha allah mu doon lu uh, ñëpp xaar ñëpp doon xaar ndax ki nga xamante ni moo di Dieyna mérité na lu baax ndax dafa am ay jaar-jaar yu métti ndax moom ak Diop ñu gën koo xamee ki ñu gën koo xam ci ko ki nga xamante ne mooy pàppaay Abiba woykat boobu noonu euh, am nañ fi doom euh, am na fi tamit problème ak ki nga xam ne moo war doon borom këram di Bril Five ba ñàkkoon fi téléphone mu doon métti loolee tey nag yàlla euh, def na si ndox mu sedd di ko ñaanal gudd fan ak sëy bu barkeel ndax niki démb la doon def euh, li nga xamante ni mooy enterrement vie de jeune fille. si mariage bu Dieyna euh, la ñu nekk di wax ba tey ki nga xamante ni euh, moo di Mia Guissé di mbokkam di léppam ñëw na si wetam ngir daal di ko soutenir xamal ni ko mu ngi duggaat si beneen vie mu góor góorlu bu baax a baax a baax a baax. bu ñu jugee si loolee dañuy euh, jeexale suñuy xibaar si li nga xamante ni moo di euh, tàggat yaram euh, ci li nga xamante ni mooy la ñu war a tàbbu muy président CNG ku nekk xam na ni moom nag contrat wam jeex na ñu ne kii di Bécaye mbay ak ki nga xamante ne mooy Tyson ak ñeneen sax ndax ne nañ mën nañoo yor li nga xamante ne mooy président CNG. waaye ki nga xamante ni euh, mooy euh, ministre sport euh, nee na ñu tànn ki nga xamante ni seen xel doy na ko ñu daat koy fal fii ak mardi incha allah war nañoo war a mën a xam ki président CNG. waaye kii di Gris Bordeaux génn na wax si loolee moom nag nee na moom bi nga xamante ni moo am licence jiite lutte avec frappe. ba tey eh, si tàggat yaram di wax eh, si kii di eh, Habib Beye moom nee na mënagul yore équipe nationale bu Sénégal ndax dafa bëgg daal di yóg xoolaat boppam bu baax a baax ba ndax loole nag am na ñuy wax ne da koo bëggoon a yor mais moom jóg na nee na loolu su amoon nit ñi dinañ ko xam ndax moom parewul te toogul benn yoon ak dem ci fédération bu Sénégal wax leen dafa bëgg a yor su loolu amoon daanaka Sénégal gépp dinañ ko yëg si loolu euh, ni gi euh, tey euh, la Sénégal war a jàmmarloo ak ki nga xamante ni mooy di Malawi ci noonu ñu ngi ñaanal képp kuy doomu Sénégal mu dem fële ca stade Abdoulaye Wade supporter suñu Lions yi waaye kii di Augustin ak Malick Diaw am nañ yaakaar bu baax a baax a baax a baax ni Sénégal dina jëndam lii nag lañ leen indiloon tey di leen ñaan ngeen di way di abone ak di activer cloche notification yi ngir information bi mën a dugg ngeen mën ko am fii ci Buzz Sénégal